salaamaaleykum téléspectateur u Equivox TV tey mbégte la ñuy am di dalal Aliou Sané nga xam ne moom mooy secrétaire général Y'en a marre ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay bu baax a baax di nuyu ñëpp ñi ñuy seetaan ci Equivox TV euh, man maay wi coordonnateur u mouvement Y'en mais en même temps co-coordonnateur u euh, collectif citoyen ñoo lànk. ani lan moo a ngeen di lànk lan ngeen di lànk. mais en fait écho wu peuple sénégalais rek la citoyen wu sénégalais. yi ci euh, mbirum euh, mesure yokkute wu prix wu électricité ndax euh, bi décision bi jibee et qu'on a mis le peuple sénégalais devant le fait accompli sénégalais yi d'un peu partout manifester nañu seen désaccord du moment où sax décision bi li ko sabab te ñu joxe ko comme ay argument sénégalais yi accepté wuñ ko et que sénégalais yi gis nañ ni aussi ñoom dañu sonn déjà ci facture yu cher déjà facture électricité yi dafa cher déjà boo jógee ci loolu aussi dundu gi dafa cher et puis euh, dañu tëdd ci suuf déjà dañu tëdd dañ leen tëral gouvernement bi dafa leen tëral déjà bugg leen doggal yi ak yokkute bi waa sénégalais yi nag ñu ñu ne duñ ko nangu ñoo ñoo ñoo lànk ñoo bañ donc ci la collectif bi sosoo de façon spontanée ay euh, mouvement citoyen ay activistes ak société civile principalement ñoom ñoo ko sabab au départ et euh, après ñu jàpp ni comme cause bi cause bi ñu tax a jóg cause sénégalais yépp la ñépp ci seen gis seen ñépp ci gis seen bopp il fallait que ñu ibbi ko donc ci la ñu jël décision ibbi ko dem dajeek ñépp force sociales yi les syndicats force économiques yi ñu mel ni les boulangers euh, commerçant yi UNACOIS et puis UNACOIS euh, Yeesal et puis euh, organisation politique yi aussi nga xamante ni ci réew mi lañ bokk ay pères de famille fa ne ay maire de famille yuy fay courant ak seeni militants c'est des sénégalais comme nu donc ñu dem seeti leen ñoom ñëpp pour que euh, collectif citoyen bi bu gën a yaatu pour fexe ba xeex pour que gouvernement mu dellu si ci mesure bi et puis. damay faral di wax ni mayuñu citoyen yi temps dañ ko annoncé rek ñu ne dañ koy euh, appliquer à partir du premier décembre voilà taf tafe citoyen yi e man ca jamono jooju daan naa ne ni euh, sénégalais bu ñu jàpp ne ni entré na en vigueur rek mooy c'est perdu non non gis nañ ci ay réew yu bëri ay réew Afrique yu mel ni Soudan euh, gouvernement bi cinq francs la yokk ci kilo mburu bi loolu daaneel na président au Soudan ak feneen ak feneen dans le monde les gouvernements ont eu à ay décisions yu impopulaires yi nga xamante ni citoyens yi nanguwuñ ko euh, bu ñu daal dee jóg rek gouvernement bi euh, ndax amut leen lu mën a gën a fort la légitimité le en fait le pouvoir c'est le peuple en fait le pouvoir appartient au peuple te peuple bu fàttewul loolu rek ak bépp mesure bu gouvernement mën a jël même bu dee c'est en vigueur bu taxawee rek doon benn di ko xeex rek dina ci am ndam te loolu moo waral malgré mesure bi li mu entré en vigueur mais ñu ngi ciy xeex di ci xar suñu tànk tubéy ak sénégalais yépp te gis ngeen jamono ji mobilisation yi am yépp ak yi nga xamante ni ñu ngi koy mbëbët ci fan yi di ñëw. dëgg gis nañu que ni ci combat boobu la ku ci mel ni Guy Marius Sagna doon porter muy seen camarade tey ñu jàpp ko ani lal ma la leen di def buñ ko jàppee moom ak ay ñoom professeur Babacar Diop tey ñu libéré ñenn ci ñoom bàyyi leen ñoom ci kaso bi ani lal la leen di def. Euh, ñëpp gis nañu ah ñoom Guy Marius Sagna keroog bi ñuy dem euh, pour manifester pacifiquement devant les grilles du palais ñu woon gànnaay yoruñu woon dara is étaient un petit groupe ñoom soxlawuñu woon des milliers de sénégalais ils avaient juste besoin d'un groupe de sénégalais yu motiver yu déterminés à poser cet acte la donc ils on posé cet acte gis nañu de façon injuste et arbitraire jël nañ leen ne leen ràpp ci kaso bi ci boo xoolee. Euh, gouvernement du Sénégal doxal nañu quelque temps euh, bi ñu demee devant le procureur mu am kenn ku ñu bàyyi euh, jox ko liberté provisoire et puis ña ca des bi ñu demee prison ñenn ñi nekk rëbës ñenn ñi camp gis nañu euh, pour ce qui est du professeur Babacar Diop ak étudiants yi monde monde estudiantin levée de bouclier bi fa am ak xeex bi ñu tàmbali woon di ko xeex pression bi ñu kii dans les universités que ce soit étudiants yi ak professeurs yi dafa amoon ne le gouvernement à ce que mu jël décision boobu pour casser la dynamique ñoo lànk parce que ñoom dañu ne woon ni dañu foog ni bu ñu bàyyee Babacar Diop ak cinq autres camarades day affaiblir la lutte étudiants yi dinañ téye seen bopp professeur yi téye seen bopp et que bi mu mu mu mu affaibliru te euh, je pense que liñ ci mbëbatoon amuñu ko parce que entre mobilisation 2013 euh, euh, décembre bi ak bi ñu mujj amal gis nga bi ñu mujj amal nit ñaa nga fa woon étudiants yaa nga fa ay euh, syndicat d'enseignants ñoo nga fa c'était une volonté de casser la dynamique mais malheureusement pour eux réussiruñu ko euh, ñoo lànk mu ngi fi et même démb boo xoolee réunion bi ñu amal fii démb salle bi dafa feesoon ba nit ñi xajuñu fi donc même ci réunion wu ñoo lànk yi nit ñi daan nañ ñëw mais boo xoolee démb réunion bi fi amoon ñun sax remarqué nañu présence su Euh, yeneen force yu ñëw yokk ci ñoo lànk bi donc ñu ngi koy rafetlu bu baax te xeex bi dinañ ko wéyal bu soobee yàlla. gis nañu tamit que ni dañu leen séparé ñi Rebeuss ñi Camp hmm. mais membre FRAPP France Dégage yi ku ci mel ni Alioune Badara nee na dañ leen sax bañ ñoom ñu gis ko ñu leen jox permis pour ñu gis. Euh, oui c'est dommage ah c'est dommage dañu restreindre beaucoup boo xoolee Guy Marius Sagna Ousmane Sarr ak Leuz Camp Pénal lañ leen yóbbu. boo xoolee ku mel ni gii dañ ko yóbbu en fait dañ ko yóbbu ci ci ci ci ci ci ci zone bi nga xamante ni c' est quand même euh, haute sécurité mu ngi partager cellule ak quelqu'un je pense Abou Diallo ou quelque chose comme sax bi bi ñu inculpé je pense ci mbirum terrorisme donc en fait de ci cellule terroriste yi dañ ko yóbbu Guy Marius Sagna un citoyen qui se bat pour son peuple qui di au président et aux dirigeants écoutez euh, yokk bi ngeen bëgg yokk courant bi day gën a doggali sénégalais bi nanguñ ko mu ciy xeex kooku ñu ne ko ràpp ci kaso bi ba pare yóbbu ko ci fu ñuy yóbbu terroriste yi donc c'est ça la réalité ak ay mesures de sécurité yu corsées et même pour les visites oui c'est très très compliqué du bépp indi jàmmam bu bugg jóg rek dem seeti ko nemmeeku ko mën ko def non donc am na ay gàllankoor ci loolu est-ce que du ñoom dañu jàpp ñu terroriste la parce que est-ce que du image boobu la am ci Guy Marius Sagna. donc bu dee loolu la bépp sénégalais bu bañkat buy xeexal askanam mu jaral ko bakkanam donc terroriste la te di ko def pacifiquement te c'est ça Guy Marius euh, y a plus pacifique que gis nga bi ñu koy jàpp loxo yi ci poche yi la ne woon. en fait loolu amut signe bu ko gën a bi ko gën a fës ci mbirum euh, ci ci ci ci ci euh, non violence donc bu dee bépp sénégalais bi nga xamante ni sa réew moo la tax a jóg. Euh, sa askan moo la tax a jóg di leen jooyal seeni naqar di leen taxawal fi nga leen war a taxawoo ci pacifiquement bu dee loolu mooy terrorisme kon bépp citoyen sénégalais bu digne terroriste la devant le pouvoir bien sûr. lan moo tax choix wu ñoo ñoo lànk bi ñoo ba ci grille pare palais lan lañ ko wax lan lañ bëggoon en fait dem ba ci buntu palais bi la grille pour lan la woon. parce que palais de la république euh, palais wu sénégalais yépp la. et que suñu institution président de la république moo fa nekk Macky Sall si c'était un grand homme li mu waroon def rek mooy parce que gendarme yi daanaka Guy Marius bi muy agrippé wu ñu koy pamti pamte ci la téyewaale gri yi pour bañ a daanu après ñu jàpp ko dugal ko ci pale bi ñoom ñoo ko sax dugal parce que dugg na ci pale bi Macky Sall bu doon la démocrate bi muy wootee ah Euh, mais daal nañ ñëw c'est des citoyens sénégalais yu bëgg wax ci benn cause bu soxal sénégalais yi mbirum électricité ñu ñëw ma recevoir leen noonu la waroon demee donc ils sont pas allés là pour autre chose dañu bëggoon rek dem yeggee président li sénégalais yi di di naqarlu muy yokkute bi donc malheureusement gis nga di leen ci fekk alors que ci ay jamono en 2007 nit ñi ñu ngi koy wax da xool am na ay euh, militants wu APR yi nga xamante ni. ci ay mbirum Alioune Sall investiruñ ko ci listu APR pour être député ñu dem foofu amut ñu fa defut ay grenade lacrymogène mu jëpp fa gis nañ fi les étudiants de l'APR ils sont allés ci biir pale di fa xeex lan lañ leen def dara gii defut loolu yëpp gi defu demu fa sax pour mbiru boppam wala ay ñi ñi ko jege mais dafa dem pour mbirum Sénégal pour pour pour pour pour pour pour yeggee président naqaru Sénégalais ci mbirum électricité et encore une fois dama koy wax te dama koy waxaat gii bu doon moom rek peut-être jarut muy kii gii am na lu mu fayee facture jàng na fa mu war a jànge am na métier ak ñeneen ñi fa nekk ak ñeneen ñeneen ñu ñu ko jàppandoon peut-être bu doon ñoom rek euh, jarut ñuy naqarlu mais euh, peuple bi moo leen tax a jóg ñuy ay citoyens ay xeexkat di ay activistes ñu poser cet acte là donc mais gis nañu aussi soutien bi ko bu Sénégalais yi soutenir cause bi on le voit parce que du Sénégalais yi yëpp ñooy dem manifester forcément mais ñu ci bëri ñu ngi ci seen i kër ci seeni i bërëbu liggéeykaay di di ko naqarlu et puis di soutenir mais am na aussi ñu bëri ñuy ñëw ci manifestation yi gis ngeen ko te tàmbali la rek fi ñu jëm di ngeen ko gis bu dee vraiment. le président gouvernement bi revenir uñu sur cette décision la déjà bàyyi ñoom Guy Marius Sagna ci ba mu gënee gaaw je pense que cour d'appel war na war na prononcé wu ci euh, requête bi avocat yi def pour liberté provisoire on espère que fii ak mardi prochain incha allah euh, dinañu dinañ leen bàyyi e que ñu revenir aussi ci décision augmentation prix électricité nekkagul woon sax en vigueur gis ngeen facture yi ni mu commencé cher déjà waxatuma la nag bu bu ñu bu mesure bi entrer en vigueur ci facture yi ñëw. mise à part loolu gis nañu benn probabilité rencontre entre ñoo lànk ak le président Macky Sall via ABC. très bien li li am ci loolu dama koy dama koy leeral rek comme ça en tant que co-coordonnateur de la plateforme parce que nit ñi ñu ngi ciy wax lu bëri euh, dama bëggoon ne ni rek rencontre ba Badara Cissé monsieur le médiateur de la République dafa rentré ci série wu rencontre yi nga xamante ni ñoo lànk mu ngi ko amaloon ak différents acteurs maa ngi la doon ne ni rencontré nañ syndicats yi rencontré nañu ñenn force économiques yi comme les commerçants rencontré nañu boulanger yi Euh, rencontré nañu ay organisation politique aussi mais surtout pour wane caractère citoyen wu ñoo lànk ba Badara Cissé bi nga xamante ni il est de l'APR c'est un c'est quelqu'un de la per mais en même temps institution la yor on est allé le voir donc pour pour lui expliquer notre lutte donc euh, ci biir loolu ci waxtaan yi mu ne ñu euh, man de rafetlu naa torop torop seen teewaay fii et que man en tant que médiateur dinaa ko yeggee président mais est-ce que président bu manifesté woon volonté wu rencontrer leen est-ce que di ngeen nangu ñi ñu fa yebaloon ñu ne ko ñun ay citoyens rek lañu cause bi ñuy xeex mbirum électricité bi pour que gouvernement mu dellu si bu dee dañu rencontre ak président mooy tax cause boobu mu saafaraw ba sénégalais yi ñu am ci mbégte ñun on est prêt mais on voudrait que le président Macky Sall pour que mu manifester ouverture am ak. Euh, climat wu rencontre boobu mu mën a serein on voudrait y ak ñoom Guy Marius Sagna ak ñoom euh, Ousmane Sarr ak ñoom Leuz c'est-à-dire que ñu libérer leen et que ñoom ñu mën a bokk ci délégation bi je pense que le médiateur bi muy def grand jury dafa omettroon cette condition la euh, leeralu ko woon mais def na benn message bi mu envoyé Babacar Fall pour ñu rectifier en même temps am na benn lettre bi mu ñu envoyé bi ñu jot tey pour jéggalu ne ni c'est vrai que ñun newoon nañ ni waaw on est ouvert en tant que citoyen en rencontrer le président mais que bu ñuy dem euh, dañu bëgg ñu ànd ak Guy yu Sagna ak suñu camarades yu nekk prison ñu bokk ci délégation bi. mën nañ jàpp ne condition boobu ngeen mën a dem wuy jéem condition boobu waaw incha allah bu dee Guy Marius Sagna du bokk ci délégation bi. bu dee euh, Ousmane sar du bokk ci délégation bi bu dee Leuz du bokk ci délégation bi malheureusement duñ mën a dem parce que ñooñu li leen taxoon jot mooy dem yeggee loolu ba ñu jàpp leen injustement donc il faut ñu bàyyi leen ñoom liggéey boobu ñu tàmbali woon que mu mën a yegg ñu ànd ak ñoom dem face au président ne ko sénégalais yi ñu ci mesure euh, yokkute wu prix wu électricité bi et que gouvernement mu dellu si et puis on a tous les arguments on a un mémorandum techniquement on est bien outillé pour que ñu prouver leen ni xaalis boobu mun nañ ko jëlijee feneen fu dul ci poosu sénégalais yi. lan mooy nekk perspective mouvement Ñoo am nañu conférence de presse bu ñu war a amal incha allah jeudi euh, ci suba si 10 heures dinañu fësal la ca des incha allah am na ay activités yu am solo yu ñu war a tàmbali euh, ci fan yi di ñëw. sama dernier mot mooy encore une fois di di jaajëfal ñëpp ñu ñuy seetaan euh, ci Equivox TV et puis di naan sénégalais yi rek ni seule la lutte libère voilà seule la lutte libère loolu mooy sama dernier mot. mooy euh, quand on n'est pas d'accord on dit non et il faut se battre voilà peuple sénégalais nag xamee nañ ko njàmbaare boobu voilà donc c'est ce même peuple qui encore la et que l'autre chose rek mooy peut-être que ci biir semaine bi dinañ tàmbali yeneen rencontre yi nga xamante ni ci kilifa diine yi lay doon ak yooyu euh, ñu ngi ci def ñu ngi ciy def ay jéego incha allah buñ ci yeggee rek di ngeen jot information. mbégte la am euh, di dalal. Aliou Sané di coordonnateur wu Y'en nekk co-coordonnateur wu plateforme Non Lank di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen invité.